contact suivi ñeent fukk ak juróom benn yi nekk ay cas communautaire ñeent fukk ak juróom ñoo ci dellu ci seen mbokk juróom-ñetti cas grave la ñu yoo xamante ne ñoo ngi en réanimation benn doomu aadama ñàkk na ci bakkanam bi mbas mi duggee ci Sénégal nag di ñaari fan ci weeru mars ba léegi Sénégal am na ci lu toll ci fukki junni ak juróom benn ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari cas yoo xamante ne nemmeeku nañ ko fi ci ñoom fukki junni juróom ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn doomu aadama ñoo ci daal di wér ñi ci faatu ba mu dooree ba léegi seen lim toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti fukk ñi nga xamante ni nag jamono ji ñooy wéyal seenu faj tëdd ci lal hôpitaux yi seen lim toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar mu nekkoon communiqué bi nga xamante ne docteur Mamadou Ndiaye daal dina koy fësal ci yooyu communiqué la ñuy des ba tey ndaxte li nga xamante ne moom mooy mbas mi daal dina yokk bu baax a baax fii ci Sénégal ba tax na sax ñuy njort am ñaareelu vague loole nag nekk ay euh, xibaar yoo xamante ni ñi ngànk wàllu faj gi fii ci Sénégal ñoo ko rek daal euh, xamle ndaxte ci samedi bu ñu génn dong téeméeri doomi aadama lañ fi am yu amaat feebar bi am na kenn tamit koo xamante ne faatu na ci ci samedi bi ci dimanche tey bi tamit juróom fukk la am ñoo xamante ne euh, amaat nañu doomu jàngoro bi kenn tamit daal di na ci faatu ci àdduna bi yëpp nag jamono ji benn million ak xaaj ñoo ci daal di faatu ci mbas mi di xamle tamit juróom benn million ak juróom yoo xamante ni moo ci am doomu jàngoro ba mu duggee ci ci àdduna bi ba léegi yooyu chiffre nag AFP moo ko daal di fësal ci alxames bi États-Unis Brésil bokk na ci réew yi nga xamante ne mbas mi daal dinañ leen laal trop docteur Seydi jiite kër gi nga xamante ne moom mooy hôpital bu Fann daal dinañ na ni fii ci Sénégal dinañu dem ci ñaareelu vague bi ndaxte cas yi ci biir semaine bi dafa daal di takku lool ba tax sax muy alerté ñi nga xamante ne ñoom ñooy guides religieux yi ba ñu fexe rek ba dakkal lépp loo xamante ne dafay rassemblement ñaxaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy talibé yi loolu nag nekk ay xibaar yoo xamante ne na lool ci biir semaine bi leneen ñu wax ci euh, marche bi nga xamante ne kuréel gi ëmb nappkat yi ci Sénégal di UNAPAS jàppoon nañ ko nag mu fas yéene woon a nekk ñeenti fan ci weeru décembre waaye nag jul antu li ko waral nag ñu di suñu autorité rek dañoo daq boobee marché wax ne du am mu tombe woon ak ajuma ba la ñu génn loole nag metti lool ñi nga xamante ne ñoom ñooy nappkat yi nga xamante ne fu ne ci Sénégal lañ fas yéene woon bàyyi ko ngir amal boobee marche doon dénoncer licence de pêche ak li nga xamante ne moom mooy accord de pêche yi yi nga xamante ne wax nañ ne nguur gi da ko signal ay bateau yu bàyyi ko ca biti réew ba ñu leen lànkalee boobu marche tax na sax ñu daal di wut seen plan B daal di teg ñetti fan la ñu fas yéenee toog te duñu indi wenn jën ci réew mi loolee nag ñu daal di ko fas yéene tàmbali alxames bi ñu dëgmal ñooy nappkat nag meral lool ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu napp ki fii ci Sénégal rawatina nag ki nga xamante ne moom mooy jëriñ bi di Alioune Ndoye ñeent membre yoo xamante ne nag dañu bokk ci kuréel gi nga xamante ne moom mooy ñoo lànk la ñu daal di teg loxo loolee nag gannaaw ba ñu demee demee ca préfecture bu Ndakaaru doon jébbal ab lettre d'information mu euh, jamono ji ñu wax ak yéen ñoom ñeenti ñëpp ñu ngi ci commissariat central bu Ndakaaru loolee nag nekk loo xamante ne activiste bi di Guy Marius Sagna dafa daal di ñaawlu bu baax a baax li ni mel ndaxte jàpp na ne suñu autorité dañuy profité ci mbas mi euh, di interdire li nga xamante ne moom mooy ay euh, marche loole rek mu jàpp ne dañ ko def ngir xeex ak ak yelefu ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu aadama yi ñeent ñi nga xamante ne teg nañ loxo bokk na ci Pape Abdoulaye xamante moom mooy fàllu Pape Bouba Diop daal di làq woon ci dimanche bële ñu génn gannaaw ba ko ab feebar bu yàgg daal di euh, tëralee gannaaw ba ñu amalee fële ca lan cérémonie de levée du corps bu Pape Bouba Diop ci gannaaw ba nag lañ ko andi fi nga xamante ne moom mooy ci Sénégal ajuma mu ñëw AIBD njiitu réew mi nag taxawoon ko ngir rendre hommage ki nga xamante ne nag daal dinay def lu ne ci football ci Sénégal rawatina ci àdduna bi moom Pape Bouba Diop njiitu réew mi fas yéene jël ay dogal daal di teg duppe ko stade bi nga xamante ne moom la ñu doon fas yéene woo stade du Sénégal mu tuddee ko kii di Pape Bouba Diop waaye tamit yemu ca daal dina koy élevé au rang de chevalier de l'ordre national du mérite boobee titre nag njiitu réew dong moo am dogal daal di koy def di xam ne nag kii di Bruno Diatta ba mu génne àdduna tamit Macky Sall defaloon na ko li ni mel Pape Bouba Diop ay atam toll woon ci ñeen fukk ak ñaar ñuy xam le nag jamono ji mu ngay noppalu fële nga xamante ne moom mooy sa sëg yu Rufisque ni dem démb ca samedi bi lañ ko denc foofee nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Rufisque centre du Kara gannaaw ba gendarmerie nationale la def ab ans ci yooyee béréb eh, yoo xamante ne nag dañ ne moom mooy ay doomu aadama yoo ne dañ leen teg loxo ci lu dul seen yooyu mën nañ ko nemmee ko ca Géejawaay yu mel ni ko zone i béréb yoo xamante eh, yooyu bañ ko taxawalee ba léegi gendarmerie ci enquête bi nga xamante jot na fës ñu ngi xam le fukk ak juróom-ñaari doomu aadama daal nañ ci ñàkk seen bakkan loole nag nekk ay kàddu yoo xamante ne ay témoins yu dëkkoon ci yooyee centre ñoo ko daal di xamle gannaaw bu ñu fësalee yooyee révélation ki nga xamante ne moom mooy Mounirou Sarr nekk secrétaire général bu euh, diwaan moom mee yor wàllum communication bi daal dinay génn ak communiqué tamit di xamle boobee centre gannaaw bu ko Serigne du Kara taxawalee fii ci Sénégal dañ ko taxawal rek ngir waajur yi nga xamante ne seen doom dañu jëloon weneen yoon mën a rek jubbantiku moo taxoon ñu taxawal bi les centre waaye lépp loo xamante ne dafay accusation ñu teg ko ci seenu ndodd nekkul loo xamante ne ñoom ñoo ko daal def mu nekk ay xibaar yoo xamante ne mu ngi wëy di am ba léegi chaque jour ñu am lu bees jëm ci boobee centre tey ji tamit ñu ngi xamal am na kenn koo xamante ne bokkoon na ci boobee centre daal di ñàkk bakkanam mu doon wuyoo ci turu sii di Kharachi jaañ moom mi atam tolloon ci juróom fukk ak ñeent gannaaw ba ko gendarmerie daal di fekk ca boobee bërëb daal di koy yóbbu ci ay gaañu gaañu yu métti yu ko daloon daal dinay mujj nag ñàkk bakkanam jamono ji nag ñu ngi xamle boobee lim ci ñi faatu daal dina yokkuwaat euh, mu ngi faatu nag guddik ñetti fan jàpp ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 bi ñu nekk mu nekk woon célibataire yorul woon benn tout tànk bi muy génn àdduna euh, géejawaay lañ ko fekkoon euh, daal di koy libéré ci boobee centre gendarmerie amuloon li ni mel ñi xamle ba tey ñi di ay mbokkam ñu ngi sàkku nag autopsie ak ay leeral jëm ci ak faatoom jamono ji nag ñu ngi xaarandi résultat jëm ci boobu autopsie Assane Diouf daal dinay tàmbali xiifal fële ca kaso ba mu nekk ñu ko tegee loxo juróomi fan ci weeru juin ba la génn jamono ji nag mu ngi fas yéene waajal ab grève boo xamante ne nag grève de la faim mu nar am nag altine bi ñu dëgmal la ko fas yéene tàmbali gannaaw ba nga xamante ne nag ab mandat de dépôt waroon a jeex ci samedi ba la ñu génn avocat am di Ciré Clédor daal dinay naqarlu bu baax a baax condition yi nga xamante ne ñu ngi ko teg loxo kii di ab client am di Assane Diouf ba tax na sax nee na dafay saisir kër gi nga xamante ne moom mooy CEDEAO gi nga xamante ne moom mooy l'inspection général des affaires judiciaires ñeenti fan ci weeru décembre atum 2018 ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 ñaari at gannaaw ba ñu fàttaliku ki nga xamante ne moom moo nekkoon PDG bu groupe Walfadjri di Sidi Lamine Niass mu nga xam le nag ab journaliste woon nekk juriste nekkoon ab guide religieux boo xamante ne lu nekk defoon na ko fii ci réew réew mi nag moom Sidi Lamine Niass bañ koy defal ab anniversaire am gannaaw ba mu génnee àdduna nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay fansam bàyyi ko fu nekk ci àdduna bi ñëwoon ca kër googee nga xamante ne moom mooy Walfadjri doon rendre hommage ki nga xamante ne nag moom mooy seenub idole di Sidi Lamine Niass ambassadeur bu Afrique du Sud fii ci Sénégal di Lénine Chop la ñu fekk ca këram nga nekkee fële ca diwaanu Almadi mu daal di rek ñàkk bakkenam gannaaw rek ba chauffeur am daal di yem ci boobee découverte woo police ñu ñëw nag daal ji ab enquête jëm ci moome mbir di xam ne nag ay atam mu ngi tolloon ci juróom ñaar fukk ak ñeent moom ngi doon xamal sax jotoon na am feebar bi nga xamante ne nag boobu mooy coronavirus jamono ji nag police daal dinay tijji ab enquête indi ay leerange ci mbirum faatu ki nga xamante ne moom mooy leneen shop ñun daar li nga xamante ne moom mooy débriefing de la semaine bi ak kër gi nga xamante ne moom mooy conseil économique social et environnemental Idrissa Seck jamono ji moom moo nekk njiit la daal dinay tabaat beneen conseillère spéciale bu yees muy wéy ci turu Kumba Nguy Thiam Gueye gannaaw rek ba mu fa tabbee aw Gueye Kébé ak ki nga xamante ne moom mooy Lamine Ba di sa Seck nag jamono ji mu ngi indi ay euh, euh, conseillère di leen teg ca boobee kër loolu nag nekk ay xibaar yoo xamante ne fasoon na lool ci biir semaine bi jërë ngeen jëf mbokk yi loole mu nekkoon euh, seen débriefing de la semaine manaam lépp rek li nga xamante ne dafay actualité euh, di fait marquant ci biir semaine bi ñu leen ko doon dégtal ci biir leeral TV ak leeral point net di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen wéy di suivre euh, programme yu leeral.